asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñi ngeen xam ne yen a ngi topp chaîne Chute Rafah TV di ci ànd ak ñun saa su nekk di ñu bàyyi xel ñu ngi leen bu baax a baax di kontaane ci yéen uh, kon nag tey ñu seet si benn sët si sëti si Ibra yi uh, mu nekk fii ci Touba janatu uh, mu ngi fii nag tey fas yéene togg ay ndogu di ko yët ki nga xam ne it moo di baayam di borom digal faal kon dañuy daal di ànd ak moom rek su ko defee ñu bàyyi ko mu nuyoo sëñ bi sant yàlla bi naka la. Mame Mbacke Fall jaamu borom ndigal. Mame Mbacke jaami borom ndigal tey bu ñu bëggoon a xam Mame Mbacke mooy kan naka nga. Mame Mbacke Fall comme ni ma ko waxee léegi rek jëmm la joo xamante ni bii yàlla suñu borom moo ko baaxee mu bokk ci njabootu Serigne Cheikh Fall borom ndigal. di seet ci Cheikh di seet ci maam Cheikh Ibrahima Fall bokk ci njabootu Serigne Cheikh Fall borom digal gi. sunu waajur yi dippee ñu sunu maam jooji di Serigne Mbacke Fall bokk ak si Maroune Sa Fall wenn waajur muy maam Cheikh Ibra ñu fekk baax cees juddoo ci kër yi ndax sunu waajur bokkoon na ci mag ñi nekkoon ak Serigne Cheikh Fall Baye góor bataax na loolu li ma ci mën a wax mooy jëmm ji doomam la di sama rakk waajur wu jigéen mu tuddee woon ko Serigne Cheikh Fall Baye góor. waaye nag ñuy ay jëmm yoo xamante ne bii comme ni ma ko waxee léegi rek yàlla moo ñu baaxee rek ñu juddoo ci keppaaru sëriñ bi waaye nag doxinu taalibe rek la ñuy xeeñcu te moom lañ bëgg moo tax daal maam Mbacke Fall mooy maam Mbacke Fall waaye jaamu borom digal nag moom lañ fa si yéene doon ba faw rek incha allah rabbi incha allah jaamu boroom ndigal lañ fa yéene doon ba na rek euh, waaye euh, maam Mbacke euh, nga doon ki nga xam ne yaa di doomi Serigne Cheikh ndigal mu Cheikh Fall Baye góor mu sëñ Modou Moustapha Fall mu maam Cheikh Ibrahima Fall ñu gisoon sa maam nag amoon yéene ak pas-pas ci ndog yi bi muy jot ci ndigali ndog yi naka la demee bi sëñ bi di nga xam ne sëñ Cheikh Fall sëñ Cheikh sëñ doon na yóbbul sëñ bu mag bi ndog waaw foofu de liñ ci déggee ni rek ci mag ñi ñu koy wax moo di ni Cheikh Ibrahima Fall dafa am bis Serigne Touba woolu mag ñi ñu ñëw fekk boobu weeru koor wi dafa jub si bi mu woowee mag ñi ñu ñëw mu ne leen damay am gan te dama bëgg ngeen ganaleel ma ko Serigne Touba wax ne ndigal loolee rek la joxe bi mu joxee ndigal loolee Cheikh Ibrahima Fall bi mu génnee daan ne xëy doom Sëñ Bamba day weeru koor gi lay wax. kon mën nañu ni li ñu xamakus néew mooy di ndigal loolee daal xam nañu ne ni Cheikh Ibra Fall bokk na ci li njëkk a déggee sëriñ bi wax ko woo waaw gan googu nag la Cheikh Ibra Fall doon teeroo nii maanaam ba suñ borom dogal mu am ci pas-pas ak pësteefu togg di jox njabootuk sëriñ tubaa gi ak mboolem ñi nga xamante ni bi dañoo féetee fii ci dëkk bi ndax comme ni ma koy waxee rek ku julliwut wóoroo war a mën a jox jàmm yàlla yi ñu xewlu xëy na Cheikh Ibra Fall gis-gis boobu ak pas-pas boobu la amoon ci digganteem ak sëriñ bi ba suñ borom ba bi sëriñ bi waxee gan gi nga xamante ni moo lañ koy teerul muy weeru koor gi nga xamante ni bii mooy weer wi gën a màgg ci weer wi mu am ci mu am ci gis-gis boobu kon loolu daal xam nañu ni bokkoon na ci ndigal li nga xamante ni bii ci la Cheikh Ibra Fall làmp sukkandikoon ba taxawal ndogoom ko doon def euh, fukki ndab ak ñaar di ci tegaale benn super euh, daan ko tuddee euh, ndabal yàlla loolu fan la jóge waaw loolu de xam naa ni comme ni ko waxee ndax maanaam am na ci loo xamante ni bi xëy ñun day doon mbir moo xamante ni bi dafay jiitu suñu judd ba xëy maanaam ni ko nit ñi di déggee nii rek ñun tamit daanaka noonu lañ koy déggee waaye daal li ci am solo moo di ni comme ni nga ko waxee léegi nii ni maanaam fukki ndab ak ñett la daan togg teg ci ndab loolu di ko wooyee ndabal yàlla ah, ñun tamit bu ñëwee tamit doon ay ndaw fekk suñu waajur wii di siñ safaal borom digal tegu ci yoon woowu di togg di joxe ñu bokkoon ci ñi nga xamante ni bii dañ daan ñëw di gunge ci ndog yi koñ bu ñu ba tey jii suñu boroom dimbali ñu ba nu war a mën a jël lu toll ni ab junni rek ak li muy néew néew new man koo dugal ci ndog yi kat loolu ak sant lañ sant la. kon dañuy ñaan ci darajey Sëriñ Tuubaa Cheikh bool bee Cheikh Ibra Fall tuddee woon dabal yàlla yàlla ñu dugal ci bool boobu ci barke maam Cheikh Ibrahima Fall euh, ñu toll ci weeru koor te dañoo gis ne bu ñu tollee ci weer wi nga xam ne weeru sell la da ngeen ci am yëg-yëg am ci Pastef lan ngeen ci yëg waaw comme ni liñ ciy yëg mooy ñi nga xamante ne bii suñu borom dafa def ñu nekk di julli ak di woor bu weer wi ñëwee ni ñu koy fonkee ak ni koy teeroo ak ni koy teralee ñun tamit pas-pas bu raw boobu lañ ciy am ba tax bu ñëwee ñu bàyyi suñu yitte yëpp ndax sa kër neex na lool nga yor sa soxna yor sa njaboot wala nga dëkk ak say waajur lu neex la te fii ñu ngi fi gis ñu toog ñëpp wax dëgg yàlla kenn ku ci ku ci yoru këram tamit mu ngi dëkk ak ay waajuram waaye fi mu ne ñoom ñëpp danoo bàyyi seeni kër bàyyi seeni waajur ñëw ci weeru koor gi kon maanaam tey jii lii nga xamante ni bii moom lañuy def bàyyi suñu yitte bàyyi njaboot gi woon ñëpp ginnaaw jublu sëriñ bi loolee danoo gis ni ngëneel la looloo xamante ni bii maanaam comme ni ma ko waxee léegi nii ndax léegi rek maa ngi ciy waxtaan ak jëmm yi man leen weeru koor de day weeru wu màgg woo xamante ni bi ñu bari sax ci ñuy woor xamee am na ñu ñu ngi woor nii rek waaye xamuñu dëgg-dëgg njariñ li ndax amee am na ay jëmm yoo xamante ni bii da nga leen di gis ñu ne war nañu te maanaam fajar la ñuy tëdd 19 heures la ñuy yeewu te weeru koor maanaam weer la woo xamante ni bii ngëneel yi ci suñu borom wàcc dafa bari bari bari ba nga xam ni jaamu yàlla bi suñu borom lim ko ci sant mooy weer woowu bu ñëwee lu mu doon def benn mu def ko fukk ndax bénéfice da ciy bari moo tax waaw comme ñun moom ay Baay Faal la ñu gëmuñu ko dul maam Cheikh Ibrahima Fall te gëm gi ñu ko gëm tamit amuñu ci tànk ginnaaw te gis nañu ci njariñ tamit waaw kon li Cheikh Ibrahima Fall tegoon tànkam rek foofu lañu fas yéene teg suñu tànk waaw macha allah ñu gis ni tey rek ngay togg ndogu fas yéene ko yóbbul ki nga xam ne ah, moo di Paa Léne ah, yow bi nga tàmbalee togg ndogu ba léegi ci sa baay nga koy yóbbu wala ci Mbàkke Mbàkke waaw man de wax dëgg yàlla bi ma tàmbalee toog ndoogoo léegi sama waajuru góor laa fi yëpp muy Sëñ Cheikh Fall borom digal ndax ci moom laa sukk jébbalu moom bi ma juróoy ba pare nag ma bokk ci ak njabootam di ab taalibeem waaye damaa wëlbatikuwaat tamit dem jokk ci moom jox ko sama njébbal waaw ab taalibe nag bu jébbaloo ci ab sëriñam eh, la war sa diggante ak moom muy joxe addiye ak foxee fonk sa ndigalu sëriñ ba bu la wooyee loo man a jàpp nga bàyyi ko dem loolee man maa nga cay góorgóorlu lu ma man ndaw li nga xam ne nag dafa jébalu ci nga xam ci kër gi nga xam ne moo di kër bu Baye Fall te du ci jëf du ci teew kooku loo koy wax. waaw suñu Cheikh Fall Baye góor daf ni woon ku bawul lu lu ñëw nga ne gars yi mën nañ ko bu yàggee gaay yi dem bala woykat bi daal di wax ni Cheikh Baye góor ne kër gi kon fi raw ba ñu lay raw teewul nga fekke loolu kon lépp loo xamante ni bii nit ki du koy jëf ba raw la ba mu koy jëf yaa ngi taxawoon di ko xool nit nag li ñuy wax ne doomu aadama mënut a joxe bopp ba pare ràccu làmmiñ taalibe bi nga xamante ni dafa sukk jébbalu ba pare téye boppam demul dikkul joxewul addiya moom nit ko joxee boppam ba boppam ba pare ci raam ñoo yem loolu moom yaakaar naa ni xëy na jébbalu ko baax na waaye nag jëf jee gën ndax Cheikh Ibrahima Fall lim rawee ñëpp mooy muy jébbalu muy jëf ndax mboolem ñu nekk fekkoon Sëriñ Tuubaa kum ci njëkk kum ci njëkkutu jébbalu tamit ñëpp mujjoon nañ jébbalu ci sëriñ bi di ay taalibeem waaye nag ci jëf la leen ci jëf leen rawee kon ab taalibe moom rawat na ko bokk ci kër Cheikh Ibrahima jëf daal mooy doon bunt bi nga xamante ni bii loo man di lu man di lu man di yéesit buntu jëf bi moom war naa war naa mën a bari waaw. kon euh, Mame Mbacke euh, ndaw ñi nga xam ne ñu ngi ci sa biir euh, ñu bari yaakaar la itam ak ñi nga xam ne it ñu ngi bëgg a dugg naan Mame Mbacke mooy suñu soppee ñooñu noonu lan nga leen di xelal. waaw ñooñu day li ma leen di xelal moo di loolu daanaka xel moom dama koy delluwaat sama jëmm ji ndax cofeel geeg gis gin ma gis tamit ba ma doy leen ñu jokk ci man amaana du sama jëmm ji nii moo tax xam nga damay faral di wax wax ju am solo damay faral di wax ni jëmmi Mame Mbacke ko koy xool di ko gis la nga bëgg def sa diggante ak Cheikh Ibra doo ko def waaye bul xool Mame Mbacke xoolal Cheikh Ibra wala nga xool suñu Cheikh Fall borom digal ndax su ma leen woowee ñoom ñii di leen laaj du ma leen laaj bu jëm sama jëmmi bopp waaw mosuma leen woo sama yitey bopp su ma leen woowee ñoom ñii mën naa ni ñetti yi laa leen di sas muy màggal gàmmu màggalu Sam Fall bu soobee yàlla fas nañ ci yéene boole tabaski ji gàmmu sëriñ bi du koy dindal Thiès ñu bàyyi ko ñu fekk baax Thiès ay nit di ñëw di ñu dalal ñoom tamit ñu ciy teew kon loolu yee doomu aadama yi tax ñu koy def jaam yàlla yi lañ ciy liggéeyal màggalu saam gi tamit bis la boo xamante ni bii Serigne Cheikh Fall Baye góor lañ koy defal te Serigne Cheikh ndigal ku kenn ku ne xam na fi fi ko Serigne Cheikh Fall toll looloo tax tamit bis boobu tamit ñu leen ci sas kon loolu tamit ba tey tamit jëmut suñu mbiri bopp beneen bi ci départ mooy koor gi te koor gi kenn ku ci ne xam na ni bu ñëwee lu waaye xamadi xamadi xamadi xam ni Baay Faal yi dinañ miiraas seen bopp def ko ci kon loolu loolu daal mooy mbir bi nga xamante ne bi maanaam moom lañu mën a wax maanaam du suñu jëmm yi ñoom lañ la ñuy gis jëmm Cheikh Ibrahima la ñuy gis waaw gisuñu suñu jëmm yi ndax suñu jëmm yi jëmm yu xeebu lañ amaana lu ñu gis ñun ci ak mbaax xëy na li suñu borom nëbbu ci ñun ci lu mu waroon a feeñal ci ak ñaawteef moo ko waaye nag sant nañ yàlla suñu borom ba xëy na ñoom ñi daray ay caaxaan wala ñaawteef gisuñu ko ci suñu jëmm yi waaw di leen wax ni tamit maanaam maam Mbacke moom wax dëgg yàlla li mu fas yéene mooy liggéeyal sëriñ Tuubaa ak maam Cheikh Ibrahima Fall waaw tàmbalee ci sëriñ bi yam ci sëriñ bi ku ma ciy fekke si fekk si ma ci ku ma ciy bëgg bëgg ma ci ndax am ma lu dul sëriñ Tuubaa ak maam Cheikh Ibrahima Fall làmp nag waaye di leen xamal ni cofeel géeg yëpp rek xëy na ñun tamit cofeel gi ñu am ci ñoom ñoo ko ëpp ndax comme ni ma ko waxee léegi fa suñu doxee ne benn doxee wudul doxeenu taalibe xëy na taalibe googu nga xam ne ñu ngi ciy góorgóorlu ci la ñu gis ñoom ba am ci ak kóolute ci ñun. kon ndaw ñi nga xam ne ñoo nekk ci Bamba ji lan nga leen di dolliwaat euh, ci ci ñoom pour ñu gën a góor góorgóorlu. ndaw ñi nekk ci Bamba ji day li ma leen di gën a dolliwaat ñu gën a góorgóorlu moo di dafa am la ma suñ Moustapha kàkk sama rakk mosoon a wax te yàlla sox suñ borom dafa wax ne na ngeen ma xam laata ngeen may jàmm kon ndaw yi nga xamante ni bii dañoo gis Baye Fall gi ak Bamba ji neex maanaam neex leen ba ñu am pas-pasu dugg ci ngir liggéeyal sëriñ bi buñ ciy dugg nan gëstu ba xam lan mooy lan mooy lan lan mooy ak Baye Fall waaw buñ ciy dugg nan gëstu ba xam lan mooy ak Baye Fall waaye buñ ngir ma réerandoo ndax boo ci duggee ngir ma réerandoo rek mën ngaa dugg mën ngaa duggee ci porte boo xamante ni bii porte boobu nga dugg ak ba nga waroon dugg du doon am solo dafa wax ne su ma wootee ñi xelu ñëw ñoo ma gënal ñi xelu ñëw waaw mu ni su ma wootee ñi xelu ñëw ñoo ma gënal xelu ñëw mu ni su ma wootee ñi xelu ñëw nee na ñooñu moom mbumbaayee leen di indi bu mbumbaay ma jeexee ñu dem waaye ñi xelu ñëw nag nee na ñooñu dañuy seetantal ba gis ba gis ni lii doy na leen ñuy soog a dugg waaw loolu daal ñu gën a defaraat toogaay yi tamit ndax comme ni ma ko waxee léegi maanaam bari na yu am ci Bàmba ji yoo xam ni xëy na ñàkk xam ak ñàkk ñàkk xam dëgg-dëgg lan mooy doxin ak Baay Faal rek mooy waral ngay doxe yenn yi waaye ak Baye Fall moom yar ak i teggin wóor ma loolu ci loolu fa la ak Baye Fall tàmbalee fa la ak Baye Fall yem ndax comme ni ma koy waxee saa su nekk rek sëñ Muntaxa mii di Sëriñ Tuubaa bu demee ba mën a rattana taxaw jëmmam jéeg ni mu màggee nga xam ne kenn ku ne boo soñoon doon ko su ma nee taxaw ni bu dëgg la ma gënal sama bopp kon kenn ku ci nekk war ngaa xool maam man damay wax ne fi mu ne bu nekk war ngaa xool sa bopp sa jëmm war nga war gis sëñ Muntaxa soo dee gis sa jëmm sëñ Muntaxa rek amaana jumte yenn jumte yi du la yomb waaw kon nag ñu ngi lay eh, bége bu baax a baax maam Mbacke nga xam ne moo di doomi sëñ Cheikh Ndigal Fall ji di di sëti Cheikh Fall Baye bu góor mu sëñ Modou Moustapha di sëti Cheikh Ibra Fall kon tey ji moom lañ fekk si woon fii nga xam ne moo di Touba jannatu am mbégte ak bu baax a baax mu fas yéene togg ay ndogu nag eh, yóbbul ko ki nga xam ne moo di baayam ba fekk ko fee ci paaleen mu ànd ak moom nag ba Daaru Xuddoos ñu jébbale ko mu daal di ñibbisi kon nag sëñ bi dañ lay ñu ñu kon sëñ bi dañ lay bàyyi rek eh, nga tàggatoo mbaa koy jox kàddu gi rek nga daal di koy jox ñu dee di tëj waaw tàggatoo gi de mooy di sant ak di gërëm ci li nga xamante ni bi amaana moom la ñu suñu borom defal muy mbooloo mi mu ñu booleel mu néew ak mu bari yàlla suñu borom moom la ñu booleel lu ñu jëf tamit lu mu néew néew néew néew wala lu mu bari bari bari yàlla ak seen jëmm yu xew yi la xëy na comme niñ leen gisee nii tuuti nañ ci ay bët waaye réy nañ loolu ci jëf nag ndax lu ma woote lu mu lu maanaam lu mu bari bari bari bari su ma wootee dinañ ñëw te dinañ jikkati seen addee di ci def kon yàlla suñu borom bu dogalee ñu am tuuti lu ñuy liggéeyal seen bari ñu ci naw yàlla ak seen jëmm yu xeeb yi la waaw kon gi dañ koy njëkkee ci sunu waajur woowu di Serigne Cheikh Fall borom digal moom mi nga xamante ne bi moo ñu tàggat woon ñu yoon wi ñu koy sant di ko ñaanal saa borom guddal aw fanam te di ko gën koo dolli ak wér ci barkeb Serigne Touba baaxu maam Cheikh Ibrahima Fall di ko xamal ko ne tamit comme ni ñu ko waxee ay jaamam lañ doon tey ay jaamam lañ doon ëllëg te liggéeyal ko ak dox ci ay ngërëm ndigalam rek lañ fas yéene dox sàkkuwuñu sàkkuwuñu ci moom leneen du alal du du leneen sàkkuwuñu ci moom lu dul ngërëmam te loolu ci lii lañ mën a jaaree am ko ci kon wax dëgg yàlla dañuy sant mbokki taalibe yi nga xamante ni bii ñoom la ñu àndal ci liggéey bi nga xamante ni bii maanaam li naan feccum ndey bu bu neexee feccum liir bu neexee ndey jaay jàpp ci wagge ya kon ñoom ñii wax dëgg yàlla ñoo ñoo ñu taxaw ñoo ñu dooleel tamit ñooy sunu doole ñooy sunu lépp wax dëgg yàlla ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax waaye tamit soppe yi tamit amuñu seenu fay ndax man li may faral di wax mën naa ne bis yi may def sax lu ci bare bare bare bu jegee soppe yi ñoo koy jagal wallaay lazim nit day fu ne la nit di yëkkatee wërsëgam di ma ko jox biir réew ak bitim réew fépp am na nit ñoo xamante ne bii maanaam yàlla suñu boom daf may xamaleek ñoom ci internet bi duma leen gis ba néegi nii duñ ma gis du ma leen gis waaye am yéene ci man lool am yéene ci yooyu tamit di jël seenub liggéey di ko jaarale ci man sama jëmm ju xeebu ji kon ñu ngi sant ñooñu ñëpp nag waaye di sant ñi nga xamante ni bii ñoom lañ bokkal ci mbokkuk deret ci nga xamante ni bii mooy sama wàllu wàllu waajuru jigéen waaye bu cant googu nag damay naan mbooleem njabootuk Mame Mbaye Guèye Mbaye gépp rek maa ngi leen di sant di leen ñaanal ndax ñoom tamit wax dëgg yàlla liggéey bi bu ko tàmbalee ba léegi bàyyi bàyyiwul ma ci ginnaaw jëmm ji moom laa wax léegi doomam la mu tuddee ko si sefal bàyyi góor di sama rakku waajur wu jigéen jëmm jee tamit sama rakku yaay la moom moo topp sama yaay kon ñoom ñii ñëpp wax dëgg yàlla mën na ni ci sunu njaboot lañu bokk soxna nday bàyyi la tudd waaw moom mii tamit yàlla suñu borom dogal ni liggéey bi ñoom tamit bàyyiwul ma ci ma weet ci kon ñoom ñi amuñu seenu fay di jël nuyoo boobu nag ak ziar ba di ko teg ci seen kilifa muy pambaay di ko ñaanal saa borom yàggal ko ci kanamu njaboot geeg fay bi ba li mu yéene saa defal ko ci li ko ak njottam di ñaanal sunu maam joojee di soxna Dial Mbaye saa borom guddal aw fanam te yokk ak wéram di ko ñaanal mboolem njaboot gi Abdou sama Touré mais borom baax di sama wëlëree di nit ku baax nag waaw ah, jëmm yee aw ma fayam yàlla xam ne loolu lu ne lay def ci man nit ku baax comme xam tamit daf may boole ak moom wallaay lazim tey jii bu ko neexoon ndax bërki dem la ma woo ne ma fan yi dama laa gëj dégg te amaana bu ko neexoon mu ne comme dégguma ko fan yi bis bi mu bàyyi bis bi jàll waaye ne yéen a jum am ci man ko bëgg moo waral mu teewaayam bi moo jëmm ji wax dëgg yàlla amu seenu fay maa ngi leen di bàyyi ak saa borom bi amu mbokki taalibe yi nag ak ñi nga xamante ne bii tamit ay taalibe sëriñ bi lañ ay soppe ndax mën naa ne fii ñu ngi fi gis ñu ci ay taalibe sëriñ bi lañ ay soppe lañ ñoom tamit amuñu seenu fay ñu ngi sant ñëpp daal ku lim rek da ngay juum waaye di ñaanal boroom kër gii nag nga xamante ne bi booy mooy Baye Modou Fall di mag ci eh, magi taalibe ci eh, ci kër sëñ bi di nit ku baax ku ñu ràññee ci ak taalibe nag waaw Baye Modou Fall ku ñu ràññee ci ak taalibe bi ñuy nekk fii nekk fi tu tàng di nekk ci janatu bi fii di fi jàng yàlla suñu borom dogaloon na xéewal gi daan xéewaloo moom mi moo ko daan toggee ci këram di ñu ko indil lool la yàlla suñu borom dogal dogal dogal dogal ba tey ji ñu ñëw Tuubaa di fi daal kon ñu ngi koy sant di sant mbooleem ay soxnaam ak ak njabootam di ñaanal ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaye di sant tamit rajo bii nga xam ne télé bii nga xamante ne bii mooy Rafah TV ndax lii ñu def nii lu am solo la bari na lu baax fu muy dem ba nit ñi di ci teg seen bët bu dul woon ak eh, ki bu dul woon ak jumtuwaay yu mel nii xay na mën naa bañ a yaatoo noonu kon cant ki dañ ci jiital télé eh, eh, maanaam rajo tele bii nga xamante ni moom lañ jàkkaarloo suñu wet muy Rafah TV nga xamante ni bii ñoo ànd ak ñun ci bis bii nag waaw bàyyi seen yitte yëpp ndax bis bii maanaam Touba mën naa ni bu leen neexoon bis bi set ngeen dem kër kilifa du ngeen dajal kon tey jii bàyyi ngeen ay yitte ngir suñu yitte kon dañ leen di sant di ñaan ci daraja yi Serigne Touba ak Cheikh Ibrahima fi ngeen bëgg mu egg fa yàlla na yàlla saa borom eggale ko fu gën a kawee seeni jot ci barke maam Cheikh Ibrahima Fall sant nañ bu baax sunu xol sedd na soxna Awa ñu ngi lay sant yow ak nga àndal ñëpp nag bàyyiwun kenn sant nañ leen gërëm na leen Serigne Saliou ñu ngi koy sant di ko ñaanal moom tamit taxawaay bi daal yàlla gën a jëm kanam wax ji nag lu ci lu ci lu ci jub yàlla suñu borom mi nga xamante ni bii moo mooy moo mooy mooy boroom làmmiñ yu jub bi moo ko jubal waaye lu ci dëngit suñu jëm yu xeeb yi te yi nga xamante ni bii xëy na matadik doomu aadama moo ñuy jàpp moo ci moo ñun ci ci ñun la waaw sant ñëpp gërëm ñëpp rek wasalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatulah kon nag tey kontaan nañ bu baax a baax a baax ci kii nga xam ne moo di sëñ mu sëñ Mame Mbacke Fall di doomi borom digal euh, tey nag mu fas ne togg fii ay berndeel yu yaatoo yaatu euh, yaakaar naa ne nag jëf ji euh, yéene ji sax ëpp na jëf ji ndax bu sa ku sañoon tey rek buy dem ca baayam bee ku ne xam ne Mame Mbacke dem kon ñu ngi koy ñaanal ci doole Cheikh Ibrahima Fall li mu bëgg ba tàmbale lii di ko joxi baayam yàlla na ko suñu borom defal lu kawe njortam ci barkeb Serigne Saliou Mbacke kon Mame Mbacke ñu ngi kontaan ci yow bu baax baax di am mbégte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 te di leen siyaare foofu fi waaye mën nekk mu mel ni rek kàddu yi xam naa kàddu yi seere lay doon ci jëmm ji nga xam ne moo waral teewaay yi fii di sunu wóolëre di sunu xarit di kenn ci noonu muy Mame Mbacke Fall moom sëñ Cheikh Ndigal Fall mu mel li ñu seere ci moom mën naa ba ñu gudd lool ndax ku gis sunu teewaay fii rek di dina junju wala mu màndargaal ay qualité yu yaatu yu bari yu nekk ci moom te la ci jiitu muy jikko ju rafet ndax tey jii ku ne xam na ne mooy ñaareelu umte ci weeru tedd bi di saxru ramadan tombenteeg bis bi nga xam ne moom lay jàpp at mu jot ànd ak ay taalibeem ànd ak ay bokkam ànd ak ay wëlëreem ak i soppeem dajale hadiyaam di ko jébbal waajuróomu tedd bi Serigne Cheikh Ndigal Fall ngir ñu def ko ci liggéeyu màgg yu kawe yi nga xam ne Baye Fall yi at mu jot danañ ko amal ci weer wii muy togg ay ndogu te jëlee woon ko ci seen maam Cheikh Ibrahima Fall euh, maam Mbàkke nag euh, ñun dañ koy sant bu baax di ko seereel mbooleem waa ahlu Baye Fall yëpp ndax nit la koo xam ne lim nuru juróom Serigne Cheikh Ndigal ci ay jikko yu rafet dafa bari lool ba ci jiitu rek mooy nite ku nite la ku am ak dal la ku am yitte ju kawe lool ku rafet ab xol la ku yaatu ab dënn la ku mën a jëflanteeg ñëpp la yitte jooju ak mën a jëflanteeg ñëpp moo wala sunu teewaay fii noonu tey ñuy seereel ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom nga xam ne moo dox seen diggante ak Cheikh Ibrahima Fall dox seen diggante ak Sëñ Tuubaa ñu xam ne rek ànd nañu jëm ju ko mat waaw ñu xam ne buñ doon buñ doon buñ doon buñ doon dàkk jëm nañ ndax jëmm la joo xam ne yi daje ci moom moo daje woon ci maamam Cheikh Ibrahima Fall mu yitte ju kawe pas-pas ak dëgg ak woyof woyof gi moom képp ko taxaw moom xam nga ci dara jàppiwut boppam dara te Cheikh Ibrahima foofu la nekkoon looloo ko may lu mu am ci Serigne Touba kon nag képp ko ànd ak moom rek raw nga kon dañuy sant ñëpp di gërëm ñëpp di ko ñaanal lii nga xam ne moom la yéene waajuram bi sukk jëblu ci moom ànd ak moom di ko liggéeyal te yàlla rek a tax di ko liggéeyal ngir jëmmi maamam Cheikh Ibrahima Fall suñ borom defal ko lu kawe njort lool. waaye ñun ñi nga xam ne ñooy ay wëllëreem di ay xaritam ñun xam nañu yoonu yu mu teg tànkam bu ko teggiwut fa maamam Cheikh Ibrahima ak àggoon dana fa àgg. wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. TV une de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer